di asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy ñëw encore rek ci fusion yi tey moom dañuy boole xoolal Mexique boole euh, Éthiopie ak aussi Sénégal boole seen lekk daal di koy indi pour loolu nag gis nga da di xool comme bi ma fi defaree euh, recette kii bi bu éthiopien yi donc boobu laay indiwaat mais indi nag léegi suñu touche quoi ñun suñu touche personnel donc dama siy def euh, ginaar mu nekk dibi ginaar donc moom laa nekk di def nii euh, mu nekk fële ma daal di mariner ginaar geek yooyu daal di indi aussi ñam Tuuba boo xam ne dañ ko defaroon mu nekk maanaam li ñuy wax tufe ma am bu ma toggoon démb mu des donc loolu laay jël def ko mu nekk si digg bi boole ko ak ay suñu euh, ay euh, frites mais beneen façon bokkul pomme de terre frite kon yu ñu defaroon bii paase daal di def nag bi nga xamante ni benn recette la boo xamante ni dañ koy teg fële pour ñi xamante ni par exemple mun nañu jël même recette bii may defar nii tey pour def ko seen togg semaine incha allah mu nekk maanaam lundi ba vendredi donc dinaa jël gis ngeen ngeen ngeen gis ma yore vermicelle bu chinois bi laa yore nii ku nekk bi nga am boo nga utiliser ko boo amee bu Sénégal bi xayrun mais man dama bëggoon indi aussi beneen variété comme ça nit ñi mun a xam ni bu chinois bi am na neneen noo ko mun a defaree lu bokkul ak juste ay neemak yooyu donc ñu daal di def loolu dinañ soxla pour vermicelle bi dina wut noix bu ma am rek moo xam yow ndaamaraas nga am moo xam gerte wala boo ko buggulee bu fekkee da nga am allergie comme ñu bëri nga bañ ko utiliser man maa ngi yore piquant yore fi aussi euh, amande ak aussi raisin moom laa yore foofu donc ñoom ñoo nekk noonu après dinañ ko yëkkati comme ça ngeen mun ko gis euh, benn par benn dinañ soxla aussi suñu mélange d'épices dinañ si boole salade dinañ boole aussi voilà suñu euh, soble bu ñorul bi nga xam ne moom la ñuy defar tout toujours rek pour boole ko ak dibi bi ngeen gis ko donc au lieu de pain euh, éthiopien bi nga xamante ni moom lañ doon defee muy njara bread tey jii damay jël tortilla tortilla nga xamante ni moo gën a jàppandi si ñëpp wala euh, pain arabe boo am euh, nga utiliser ko dinañ ko boole aussi ak benn kii boo xamante ni euh, benn beñe boo xam genre beñe la boo xam ne day nekk diggante Sénégal ak aussi Mexico mu nekk <laughs> li tax may reetaan xale yi dañ ko tuddee tur ba pare mu nekk ceñees <laughs> <laughs> nee nañu ceeñee lañ koy tuddee parce que day nekk diggante churro ak beignet Sénégal comme genre pâte de nonne rek la mais man à façon laa koy defee daal donc pour loolu dinaa soxla euh, farine dinaa soxla sucre wala sucre substitut de sucre dinaa soxla tuuti cannelle dafa optionnel mais bu ñu nee cuuroo rek kanel moo tax donc euh, dinañ soxla loolu dinaa soxla aussi lait dinaa soxla tamit euh, xolal eau de fleur d'oranger mu nekk pour ñun dinaa soxla aussi euh, kii baking soda mooy bicarbonate voilà bicarbonate de baking powder du mooy bicarbonate donc moom lay soxla fii donc sans plus du ñu def rek lu du ànd ak yéen si waañ bi bismillah bismillaahi voilà gis ngeen fii li ngeen gis fii nii euh, kii bi la pomme de terre bi pomme de terre bi dama ko dagg baxal ko comme ni ngeen ko xamee rek parce que damay bëgg am tuuti euh, temps bu gaaw daal nga xam ni affaire yi day gaaw léegi damay daal di ñëw jël tuuti huile rek def si bismillah parce que si fuur bi laa koy defee ku amul fuur wala buggoo ko def si four su la neexee après nga nga kii ko nga saaf ko man bu ma ko defee nii si four bi laa koy def moom mu defaral ma leneen li ma bëgg lépp gis nga léegi dañuy daal di jël su suñu assaisonnement voilà bismillah mélange d'épices baa ngi nii voilà ñu jël aussi un peu de sel bismillah def si su génnee après dañ koy xaw a assaisonné waat tuuti la donc tuuti rek voilà nii laa koy def ma yóbbu ko léegi ci e bi moom mu defaral ma ko en attendant ñu commencé aussi dug euh, jubal ci euh, ginaar bi comme ni ngeen ko xamee rek incha allah voilà gis ngeen mi ngi nii ci e-wave bi dama koy dugal nii rek bàyyil mu xaw ma dooreel affaire yi donc voilà ñu commencé bismillah voilà léegi dañuy dem ci gaz bi daal di commencé jël euh, ginaar gi commencé ko defar rapidement moom tamit voilà wop subhanallah bismillah voilà gis ngeen ginaar gi li ma def mooy dama ko dagg euh, donc dagg ko ay dagg yu sew nga xamante ni léegi dinañ ko mun a defar ma daal di def suñu marinade classique bi donc marinaad bi amul euh, amul euh, naka lañ koy waxee amul ay citron ak affaire yooyu déedéet dañu def poivre kii ail ak aussi oignon moom laa jël ma def ko fii si biir donc gis nga nii rek laa koy defee voilà donc daal di ñëw commencé ko genre muusal léegi dama ci ñëw def suñu épices yi mu nekk euh, voilà suñu kii herbe yi mu nekk feuille de laurier ak kaani tëmbal donc kaani bi kii bi laa si soxla xet bi daal pour mu parfumer kii bi bu baax euh, ginaar gi léegi ginaar gi benn astuce bi nga xam ni moom laa def bi ma ko avant ma koy euh, mariner dama ko jël ma daal di defar sama ndox def vinaigre daal di si def aussi sel def si tuuti aay daal di euh, jël ginaar gi xooj ko foofu dama def comme par exemple nga ne boo defee ay six kopp ndox ah wala comme genre casserole bu doy nii ñaaram ndox nga daal di jël benn kaas ataaya tuuti rek def si vinaigre daal di koy sotti donc loolu laa def léegi nag nga xamante ni dama ko xooj foofu xooj ko foofu pendant presque ay deux heures de temps yooyu c'était juste loolu brine la day tax tamit euh, li leneen li muy def mooy yow tey jii booy lakk ginaar gi ginaar gi du wow ci sa loxo parce que dafa am euh, benn genre moisture bu ci nekk ba pare donc loolu noonu mu nekk astuce boo xam ne man dama koy def même su may defar ay euh, dend nii dend euh, bu lum il faut ma def loolu comme sa mu leer ma ni ndawal li du dëgër du du wow daal surtout nga xamante ni dafa amaale ay dënn donc loolu beneen astuce la donc nii lañ koy bàyyi muusool ko parce que soo leen xoolee defuma ci ndox defuma ci dara dama bëgg bàyyi ba ju naturel am bi moom mu génn après nag ñu xool su fekkee ni soxla naa def si tuuti ndox ma dolli tuuti rek lay doon mais en nañ ko bàyyi nii nga xamante ni bu ñu paree taf-taf si biti laa ko naroon lakkee mais mi ngi neige nii fi mu ne nii dëkk bi dafa weex donc damay daal di ñëw jéem ko def fii si biir kër gi si e-wave yooyu bu ko defee ñu daal di mën a euh, commencer euh, dem jublu si yeneen togg yi incha allah donc moom mu ngi def ay affaire am léegi ñu daal di ñëw jublu si kii bi si vermicelle bële voilà comme li ma leen wax rek togg bi moom yow yaay xool rek naka nga koy sentiree donc lii yëpp mun na nekk comme li ma wax ci introduction bi ci biir semaine bi nga xam ni dinga ko mën a def dinga mën a def lu la neex lii yëpp bu si nekk nga def ko séparément nga am déjà trois repas yoo xam ni bokkuñu ko voilà defe naa avant ñu kii sax war nañu mën a dem ci kii bi ci cuuroo bi. non ceeñees yi comme ça après nga xamante ne dinañu mën a le temps moom muy sedd di def ay affaire am kii bi dinañu mën a commencer defar vermicelle bi parce que vermicelle bi du jël temps du tout voilà cuuroo yi nag xaw ma ndax dingeen mën a gis ci biir ou damay daal di def nii gis nga dugal beurre tuuti bismillah wopp loolu mooy sama pot bi dafa tàng bu baax a baax <laughs> xaaral ma kase ko ak meew bi voilà gis nga meew laay def ku bëggul meew mun nga def ndox amul benn problème du ci changer dara voilà léegi dañ koy xaar mu bax rek buy bax rek ñu jël tuuti rek laa leen di wan parce que am na lu ma xawoon jot a defar ba pare donc dama leen di wan lu tuuti <laughs> ci affaire bi donc pour defar lii moom dafa yomb parce que quantité ndox bi ngay jël ak quantité farine bi ñoom ñooy tolloo pour normalement bu fekkee nii da ngay defar comme genre like pet de noon mais man damay def mu xaw a ëpp tuuti parce que damay bëgg nga xamante ni dinaa ko mun di euh, def comme ni ñuy defee beñe daal di ko xawma coppati noonu di def si si diw voilà loolu laa bëgg voilà léegi damay daal di ñëw indi sama sucre bi nga xamante ni moom la ñu amee te nga xam ni xaaral ma jël voilà gis nga mu ngi nii dafa am mélange cannelle bu la neexee nga def ko su la neexee nga bañ ko def ki nga xam ne par exemple dafa diabétique wala même diabétique bu fekkee amul substitut de sucre yi moom mun na jël yow yaay xool rek lu la neex man lu yem rek laay def euh, mun na jël par exemple euh, lem supposons mu def ko donc man dama jël mélange wu sucre ak cannelle moom laa def noonu donc mu ngi nii gis nga c'est juste pour seeyil suukar bi rek la ñuy def fi mu nekk nii nga xam ni day tombe mu baax bu la neexee nga jël sa muscade nga gratter ko si euh, fàtte naa loolu defoon naa ko aussi muscade nga gratter ko tuuti moom tamit gis nga voilà léegi ma daal di jël sama xaaral ma jël sama kii euh, kii en poudre nan la tuddati vanille en poudre voilà vanille en poudre daal di ñëw indi tuuti muscat kii euh, eau de fleur d'oranger ñu daal di siy def goût Sénégal bismillah su la neexee soo amee sa citron nga zeste ko def ko wala sa orange ak yooyu mais man tey dama koy bàyyi noonu rek donc mu nekk ni bi euh, bicarbonate baa ngi nii tuuti. ak aussi euh, farine donc gis nga lu ñuy wax euh, half a cup genn wàllu kopp rekk laa jël léegi xaaral oh sel voilà def tuuti sel pour mu relever goût bi ci boppam six er. sax ma koy xaar ba mu baax noonu mun naa ko def nii ndànk bismillah voilà yëngalal ko sama bopp lu er. affaire yi demee ba lépp féete benn kii rek nekk benn boule rek ñu changé ñu daal koy teggi da ngay gaaw nag gis nga bi may defar lii am na ku ma musoon wax jëlal am am na ku ma musoon wax jëlal fouet ndax du gën a yomb mais soo jëlee fouet li muy def mooy day tax euh, kii bi pat bi daal di euh, lézeri quoi maanaam day mel ni comme euh, genre élastique donc looloo tax doo jël fouet parce que li ko fouet di def bëggoo loolu bëggoo mu battre ko ba ba mu sonn parce que délicatesse su pat bi looloo si kii bi looloo si am njëriñ voilà gis nga dañuy yëngal ba nga xam ne te moom dafa mën a sakkan <laughs> mën a ko dafa mën a sakkan ba mu def benn boule commencé di deñ si rebord yi ñu daal di koy tegg gis nga lii moom da ngay préparer xam ni vraiment entraînement ngay defar sa biceps yi ngay defar si boppam voilà lii mooy def nag nga xamante ni yow boo ko saafee après euh, boo koy def sa làmmiñ rek muy mel ni luy seeyi noonu comme ni ñu xamee ci rose nu mu mel voilà gis nga nii lii laa soxla voilà léegi mun naa fay gaz bi bàyyi ko mu sedd tuuti rek juste pour ma mun si def nen yi bu la neexee su ma jëloon sama robo bi tey du ma xaar sax mu sedd damay gaawantu rek def ko mais comme jëluma ko damay xaar tuuti mu sedd pour ma def si nen bi comme ça duma ma sonn daal di di yëngal vigoureusement noonu bala mu may sonal donc nii laa koy tegee nii muy def ay affaire am en ñu xool suñu ginaar gi voilà ngeen gis nu mu ga gis nga defuñu ci ndox ba léegi gis nga jus bi li ma doon wax bismillah te dagg naa aussi soble def ko ci tamit daal juste pour nga xam ni muusal bi dafay neex ba bëgg a dee voilà léegi nag fii laay ñëwee def ci tuuti li nga xamante ni xàmmee nañ ko ci togg kii yi Ehm, somalien yeeg éthiopien yeeg yooyu muy curcumin bi gis nga non seulement dina am na antioxydant yu bari yu nekk ci biir anti-inflammatoire la aussi mais tamit dina jox ndawal li couleur bu rafet rafet rafet nga xam ni yow soo koy lakk doo sonn des fois comme ni ma defee woon sànq li ma leen waxoon damay jël affaire yi xooj kook yooyu ak vinaigre damay defaale aussi euh, kii curcumin si biir ndox ak vinaigre boobu may wax si laay xooj ndawal bi nga xam ni su paree même pour raxas ko mun nga ko def noonu boo koy raxas day gaaw ba nga xamante ni day dindi kii yëpp euh, ritax ritax yi nekk ci ginaar geek walla ay yenn kii yi nga xam ne c'est pas appétissant yi nga xam ne da ngay bëgg di ko génnee yooyu noonu yëpp da koy dindi assez facilement ba pare dafay visible parce que ñoom kii bi du si taq euh, curcumin bi du ko jox couleur bu jaunâtre bi donc foo toll da nga koy séen nga xam ne lii lu ma war a dindi la kon voilà gis nga moom moom taf taf nga jóge fa léegi xaaral ma ñëw indi kii bi fii euh, nuñ koy waxee ti sama pool bi teg ko ci kaw plan de travail bi comme saa ma commencé di ci def nen yi waa ngeen mun a gis may débarrasser tuuti rek voilà ana sama kii bi sax voilà gis ngeen mu def nii léegi nag ci laay jël nen bi xaaruma ko ba mu sedd bu baax a baax mais je pense que dinaa ko ñemee yëngal nii incha allah ma wàññi lii bismillah léegi nag dañuy xaw gaawantu tuuti comme ça nen bi du nekk brouillé ci biir affaire yi booy defar na quantité bu bari fii ngay indee góor yàlla yi ne leen kaa ñu dimbali la parce <laughs> ñoom ñoo ñuy ëpp force pour def lii nii su dee quantité bi dafa bari gis nga sooy door a commencé day mel ni yëf yi dafa dog wala genre yooyu yow bu ko lijjanti kii rek continuer yëngal ñu jëlaat leneen teg mel na ni sax léegi ma wër ndimbal <laughs> ma ne ko wër ndimbal jàmbaar <laughs> doo <laughs> jàpp ci jàpp ci jàpp ci waaye ma ngoog sama nen bu fi mu ne nii de voilà ah tey de seetaan nañ ma ba dee macha allah mais pare na gis nga buñ defee nii rek ah nga ne kenn ah yéen jàpp leen si ne nañ ma kenn mënul nekk si caméra yi nekk si waañ bi de ah ah te ngaa ñëw ñu échanger place tuuti mais heureusement ba nga xam ni xaar damay génne yi nga xam ni dafa collé fii pour ma mun a yëngal ko bu baax a baax voilà léegi nag quantité sucre bi moom c'est selon votre kii préférence personnelle voilà alhamdulilah waaw ah, baax na nii <laughs> ma ne ko baax na nii voilà donc nañ ko bàyyi nii daal di dem xooli suñu ndox bi fële moom daal mel ni ku tëw a baax de ginaar gi moom fi mu nekk nii ñor na ba pare doore rekk moo ci des gis nga ni mu gaawee xaaral ma ñëw la temps ndox bi di bax yooyu ma jéem a nuyoo tuuti sama gaay xool kër gi ni mu demee tey waaw ma nuyu tey jii moom soxna Xadijatu Fadiga laa njëkk séen si affaire yi boobu lancé guñu sax ma séen ko muy nuyoo ziar nañ la lu baree baree bare soxna Xadijatu noo def j'espère que yaa ngi si jàmm bu baax di nuyu aussi Lobé Cissé euh, ah moom dafa mel ni gan la de wala euh, ziar nañ la ziar nañ la lu baree baree bare di la wax dalal ak jàmm si kër gi madame Wade maa ngi lay nuyu di la ziar di la bége <laughs> di la wax naka waa Washington di nuyu aussi soxna maam Jaara Seck maa ngi lay ziar lu bare bare bare fii la mbegte mi ëppee de fii la ëppee bu baax mu naa saane nuyu naa la ziar naa la di nuyu sama sista Nafi maa ngi lay nuyu soxna Ndey Fall maa ngi lay nuyu euh, doomu baay nuyu naa la lu bari doomu baay jati aussi maa ngi lay nuyu lu bare bare bare bare soxna Ayda Mbooj ziar naa la soxna Oulimati Oulimata Ndaw maa ngi lay nuyu di la si sa Yebe Silla maa ngi lay ziar lu bari sama goro Fatou Gueye maa ngi lay ziar lu bare bari bare Dieng euh, Ama maa ngi lay nuyu di la ziar dafa mel ni yow tam gan nga si kër gi waaye sa sant bi rek moo si moo ko yàq ah maa ngi lay nuyu di la ziar lu bare bare bari di nuyu aussi euh, je crois que wax naa Aminata Sané de euh, Ndey Nogay Diagne nuyu naa la lu bare yow tamit di nuyu tamit bàcc seen <laughs> sëñ Bàcc maa ngi lay nuyu lu baree baree bare ziar naa la <laughs> ziar naa la lu bari di la bëggee waaye naka waa Sénégal waa tuuba wala ñibbisi nga <laughs> maa ngi lay nuyu ziaral ma soxna si lu baree bare Binta Yaama Ndiaye nuyu naa la ziar naa la Ndey Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar Fanta Diallo nuyu naa la ziar naa la lu baree baree bare Malick Sy 13 euh, Amidou maa ngi lay nuyu lu baree baree bare Euh, sama sista Caroline Ndoye maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ayda Thiam ah yow moom sa tur bi neex na de parce que yow moom sama turu doom si boppam nga yore ah sista ayda maa ngi lay nuyu lu bare bare bare bëgg naa la ndax tur bi si boppam <laughs> ma ne ko di la nuyu di jaaraale noonu sax di nuyu waale waa Minnesota sama doom bi foofu ayda Thiam Oumy Fall Alioune Thiam Pape ak kii kii maa ngi leen di nuyu di leen ziar Euh, Rokhaya Diène ziar naa la maam Cheikh Diouf maa ngi lay ziar lu baree baree bare yaaram di nuyu aussi euh, euh, sister Ami Diaw maa ngi lay nuyu lu baree baree bare Uh, I love you born sister uh, thank you so very much alhamdulilah waaw vraiment sant nañ leen lu bari ñu ngi leen di nuyu lu bari waaye mais tey jii dafa mel ni ma ne ko tey jii moom dafa mel ni ah <laughs> borom kër gi si boppam nekku fi tey muy soxna Absa Baal tey dafa réer fii mais euh, xam naa ni dafa xaw a nekk si ay xat-xat mais ñu ngi leen di nuyu lu baree baree bare waa kër gi euh, di leen wax ni j'espère ah gis ngeen de gaa ngi leen di wan lii la ñu am fii lii moo lii moo tax dew ma fële na le euh, dew ma lakk ji si biti gis nga tey jii moom bii la ñu am bii lañ ñu bégee <laughs> mais alhamdulilah sant yàlla rek <laughs> ma ne ko sant yàlla rek <laughs> neige bu metti mais mi ngi noonu voilà léegi euh, ndox bi baax na suñu kii bi tam ndawal li fii ginaar gi pare na donc damay daal di moom fay gaz bi rek en léegi ñu dal di commencer ci euh, kii bi vermicelle bu chinois bi voilà donc ku nekk bi nga am ngay utiliser man d'habitude bu sew bi mooy bi ñuy def ci neem yi moom laay utiliser mais tey jii damaa yorul boobu bu dijj laa fi yore donc moom laay dama koy dama koy def rek comme si da nga yore woon ceeb bu dijj ak ceeb bu sew ni ngay lijjantee affaire yi noonu laa koy considérer donc mu ngi nii su la neexee nga bàyyi ko nii euh, baxalee ko man dama koy xaw a damm tuuti su ko defee après su ma paree damay jël samay ciseaux dagg ko ba mu mel ni comme presque comme ceeb yooyu wala mu jox ma texture vermicelle loolu laay wër donc xaaral ma dugalee ko nii si cin bi bu ko defee après ñu daal di koy dagg incha allah voilà. gis nga moom du ma ci def ndox du ma ci def duma ma ci def kii du moins sel li ñu war a def mooy gis nga euh, pour vermicelle de riz bi voilà parce que dafa am ay variété am na yoo xam ni c'est fait à base de tapioca yooyu noonu soo ko jëlee li may def nii du ko mën parce que dafay mujj collé nakaaral xam nga mel ni comme genre like pâte lay def yow jëlal bi nga xam ni euh, c'est à base de riz boobu moo lay gënal daal moom moo gën léegi ñu daal di def bismillah dama koy bàyyi fii quelque chose comme ay deux à trois minutes ça dépend nu muy lijjanti ko ci biir fii su ma defee loolu rek daal di koy dindi segg ko bu ma ko dindee segg dama koy layandi comme ça nga xam ni day day kii euh, cuisson bi day arrêté si boppam gis nga bu cuisson bi arrêté nga xam ni dinaa mun a dem après def li ma bëgg a def ci kii bi yépp voilà gis nga nii rek lañ koy def mel ni comme kuy defar sa pasta rek ni ngay def donc nuy moom nuy bu wow la donc ñu xamee ko noonu léegi xaaral ma xool sama pomme de terre bi parce que léegi ma ñëw dindi ko damay fexe yi ci suuf rek ñoom tamit doore voilà voilà I'm gonna go there after when this is done gis ngeen voilà ma bëgg rek lépp tas ba pare avant voilà léegi ñu tër ku mu neex nag su fekkee da nga yor ay xale te nga bëgg vraiment ñu lekk ko yow su la neexee nga bàyyi ko ni mu nee ñum nii mu mel ni comme spaghetti nga xam ne dañuy foo ci affaire yeeg yooyu mais man moom dama koy dagg bu baax ba mu defal ma presque comme ceeb donc Fatou can have pen bi please doo ko jottale ngeen di yi taf taf nga defar say yëf daal di jublu ci leneen donc voilà xaaral ñu débarrasser tuuti en attendant bu ko defee ñu mun a jublu ci yeneen affaire yi. just gonna dañ ko bàyyi waat yeneen deux minutes rek après ñu daal di koy dindi nag donc loolu daf may permettre man ma commencer nettoyer ndànk-ndànk daldi jubal si yeneen affaire yi may def voilà pool bi ngeen gis fii damay commencer liy dem si kii bi la ci suñu vermicelle bi moom laay lijjanti nii en attendant donc pour loolu nag dinaa soxla gii bada euh, mu nekk suñu diw ñor walla ku bëggul diw ñor boo amee bër wala bu fekkee huile kese nga bëgg a def aussi xayrul mun nga ko def donc mu ngi nii man moom laay def booy xool bokk na ci diw yi gën a sain yi ci àdduna donc moo tax man ma koy utiliser à défaut de loolu mun nga utiliser aussi huile de coco daf ciy neex ba bëgg a dee voilà suñu kii bi pare na xaaral ma teggi ko dama koy dem se kii sotti nii après ñëwaat wan leen incha allah ah! dañ koy teg fële rek muy siit en attendant voilà léegi damay daal di ñëw gis nga sama kii yi nga xamante ni moom laa siy def sama xaaral ma xool sama noix yi nga xam ne moom laay utiliser donc mu ngi nii piquant boo amee ndaamaraas mu moom mooy euh, kii euh, naka lañ koy waxee ci fàtte naa tur mais mun nga ko utiliser quoi boo amee aussi gerte gerte comme Sénégal nii bu yore xollit beeg affaire yooyu yëpp mun nga ko def donc man dama koy sauter légèrement dama soxla couleur mais euh, xet bi génn aussi quoi bu ko defee aroma naturel bi nga xam ni moom mooy nekk si gerte noix yi dina mun a génn ma sentir ko gis nga couleur bi déjà nu mu def nii léegi nag avant ñuy jublu si yeneen bagage yi nga xam ne moom lañ si ñëw def incha allah parce que lii dama koy dama koy daal di après seppi tegee ko fële à côté waaw di waale aussi rek profiter de l'occasion di nuyuwaale sëñ Ibrahima Gueye fii si Denver Colorado maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu ñoom soxna Koddu ah soxna Amina ak euh, soxna Nabu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar soxna Ami Diagne ziar naa la sama sista di nuyu aussi Muna Papi Mouhamed nuyu soxna Assou ah daal di nuyu waale aussi Papa Dia Marème ak euh, faama ak aussi sama <laughs> sama doom duma ko fàtte matu maa ngi koy nuyu lu bare bare bare waa den ba nuyu naa leen lu bare bare bare voilà gis nga lii moom taf-taf boo ko defee boo commencé sentir xetu noix bi rek da koy génn da ngay dindi parce que après dafa am temps de cuisson boo xam ni su ma paree dafay continuer quoi donc loolu doo si am contrôle yow dafay continuer moo tax nga koy teel a teggi comme ça du xëm sa loxo no soo ko bàyyee supposons tey ma doon wut couleur bu commencé paal rek laa koy dindi mais soo bàyyee ba nga jot couleur bi nga xam ni moom nga soxla après lii am mooy buy sedd day ñuul kukk voilà man instant bi baax na parce que maa ngi koy sentir nii mu ngi may xeeñ carrément voilà dama koy dindi rek fi fi mu nekkoon laa koy def daal di tegaat même pool bi encore jëlaat pool bi teg voilà donc on refait la même chose gis nga bi yoon ma def sama kii mu xaw a takku tuuti léegi xaaral ma jël sama ciseau gis nga bu la neexee nga jël leneen lu la neex paaka ak yooyu mais man je trouve que su ma jëlee ciseau bi daggee ko fejatee ko nii moo gën a gaaw fuuf si man xaara diw baa ngi tàng fii wallaay ma def euh, an sama soble bi dama ko fàtte sax man xaaram ma jël

ak euh, attends voilà lii oh, I yesterday they were in a container matzah kii bi rek soble bi dama ko fàtte mais taf-taf lay doon incha allah ma koy tranché nii ay dee yu sew laa koy def rek voilà jéggalu de sama loxo bi mooy metti moo tax mënuma gaawant fi mu nekk nii voilà mais baax na lii rek laa soxla woon donc dañuy daal di ñëw def suñu euh, kii épices yi en voilà dama jël garam masala ma def si donc bu leen gars yi mu ne woon rek voilà garam masala mu ngi nii bismillah donc moom c'est optionnel ku ko bëggul mun nga ko bàyyi voilà ma daal di jël aussi tuuti ci suñu curcumin bismillah def aussi daldi bàyyi ñoom dama bëgg xaw ko togg tuuti man dama fayoon gaz bi tuuti juste rek pour nga xamante ni goût bi euh, kii bu ñorul épice bu ñorul bi day deñ nga xam ni dafay aromatiser bu baax a baax waala gis nga léegi ma daal di jël tuuti jinjeer gis nga dalay leer ni bismillah lii ni tey ji boo ko lekkee donc sa digestion dina baax ci digestion loolu loolu loolu parce que bu ngeen xoolee épices yi ñu ciy def rek parce que togg moom loolu la yow yaay xool da ngay nag yow yaay am subhanallah contrôle li ngay lekk lan nga bëgg mu jouer si sa euh, système si sa yaram quoi donc yow yaay am contrôle comme ça ay affaire u métitu biir constipation affaire yooyu yëpp du la sonal donc yow yaay jouer si épices yi kese gis nga su ma defee nii xaw a dindi xetu jinjeer bu ñorul bi ak laaj bu ñorul bi rekk macha allah gis nga nii voilà ma dolliwaat tuuti rekk daal di jël tuuti ci sama huile un peu rek bismillah ñëw def soble bi tamit bismillah voilà su la neexee nga jël sa ay kaani dagg def ci yenn saf-safal yeeg yooyu donc ñun nii lañuy ñuy jouer gum en attendant tuuti rek xaw a laxal tuuti soble bi tuuti rek su la neexee nga def ko ba mu gën a ñor mais man xam ngeen ma donc an sama soble bi sax man bi may mariner bi après voilà donc ana ma continuer di fejet kii bi voilà gis nga soo amee vermicelle chinois bi moo bu sew bi moo dàq moom mooy gën a rafet sax laa lay wax nii voilà koy dagg naa nag sama gants ya xaaral ma ñëw changé ko voilà gis nga léegi damay daal di ñëw daal di def vermicelle bi bismillah nga xam ni da koy togg comme kuy togg ceeb another glove I ripped what is it I don't even memorize it. exemple mu ngi xaw a mel ni lu xaw a weseng ci sa loxo selon sa préférence bu la neexee nga wis ci tuuti ndox tuuti rek tuuti ba xool li voilà gis nga tuuti rek bismillah parce que après dama si dama si euh, def euh, citron aussi damay jël citron daal di ko siy def gis nga nga xam ni day def comme ceeb si boppam après voilà xaaral ma def ni wàññi gaz bi bàyyi ko mu togg tuuti rek avant ma siy def citron bi voilà pour wax leen ni euh, sama sama whatsapp bi maa ngi leen di jéggalu ñi ma fa jot yoon yóndee message ak ñi nga xam ne jotaguma woon am temps euh, sauvegarder seen numéro dama leen di ñaan rek képp ku ma musoon yóndee foofu message bu la mun nga ma yóndeewaat foofu parce que même recette yi nga xam ne dama ko doon recevoir foofu dama ko yëpp laa perdre sama téléphone bi moo doon déconné benn déconné boo xam ni daal annulé numéro boobu def ay bagaasam daal ba mujj bi man numéro bi si boppam dama ko ñàkk mais léegi alhamdulilah si kàttanu yàlla am nañu beneen numéro boo xamante ni même bu fekkee yooyu am na aussi euh, dina ko mun a garder si suñu ay nuage donc dootuñu amati risque boobu incha allah man dama yaakaaroon ni euh, sauvegarder woon naa affaire yi si samay nuage mais defuma ko woon muy sama iCloud defuma ko woon donc loolu moo tax donc numéro bu bees bi 300 plus 1 la après nekk 303 euh, euh, 551 26 ouais? waaw. voilà voilà baal leen ma bët yi moo tax nii la 303 351 26 65 303 351 26 65 donc loolu mooy numéro bi xam naa ne dinañ ko afficher foofu. comme saa képp ki nga xam ne rek bëgg na jokkoo ak ñun incha allah dina ko mun a euh, am bu ko defee yëf yu mel noonu dootuñu dalati képp koo xamante ni tamit mun soon nga ñu yóndee recette si kii bële maa ngi leen di ñaan ngeen def ko parce suñu compilation bi dañ ko bëgg génnee si période du feet bi nii nga xamante ni gars yi dañ si mun ku nekk di nga mun a gis sa bopp si euh, émission bi incha allah donc ñu daal di ñëwaat fii rek balaa suñu vermicelle bi di xëm fii suñu loxo gis nga ma daal di ñëw jël citron bi nga xam ne dañ ko siy def en attendant ñu jël gis nga suñu kii yi nga xam ne moom lañ defoon ki nga xam ni par exemple danga am ñoo xam ni peut-être bëgguñu ko yow au lieu nga koy mélanger yëpp su la neexee nga daal di koy def boo demee ba defar ba pare nga defar ko comme sous forme de décoration yooyu noonu quoi donc loolu tamit mun na nekk. waa sista sista Nafi si yow waroon nga ma dimbali jàppale de yow ngay jàppale sëñ bi au lieu mu ñëw fii xam nga jël doole bi yëngal affaire yi <laughs> bu ko defee ma pare woon gaaw gaaw gaaw gaaw voilà donc citron baa ngi nii bismillah c'est optionnel mais daf koy jox goût neex quand gis nga vermicelle bi pare na voilà ma fay gas bi daal di dindi sama pomme de terre comme ça ma mun a ñëw def ci kii bi dibi bi taf taf subhanallah voilà ça nga xam ne day gaaw a doore comme ginaar bi moom pare na ba pare subhanallah oy mel na ni loxo mooy nit ah <laughs> man instant bi mënuma def dara voilà gis ngeen voilà gis ngeen damay daal di ñëw rekk fi mu nekk nii daal di commencer dooreel ginaar gi parce que ñor na ba pare doore la ñuy wër fi nekk nii mu lakk ko voilà donc nii la ñuy def daldi di commencer dindi yenn affaires yi am sama bool mariner kii bi comme ni ma leen waxoon sànq rek pomme de terre bi def ci sama ay épices gis nga damay jël suñu beneen mélange d'épices bu rouge bi rek muy yiyaa bi donc moom lañuy def nii rek bii moom xàmmee ngeen ko léegi ci kër gi voilà donc moom jeex na ma nettoyé tuuti daal ñëw jublu ci kii bële ci suñu beñe beñe bi la xaw ma la ko xale yi tuddee voilà koy boole suñu soble bu ñorul bi donc damay def tuuti moutarde daal di def tuuti bismillah huile tuuti rek daldi def suñu aay bi tuuti rek tuuti daal di jël tuuti ci mélange d'épices bi aussi def ci bismillah daal di def tuuti rek ci citron tuuti voilà def un peu de sel tamit donc su la neexee nga jël tuuti kaani nga def mais man je pense que baax na nii donc dama amoon fii soble ak tomate fraîche boo xam ne dama leen daggoon donc gis nga noonu rek laay jël mélanger leen parce que mënuñu wax dibi te du ñu am soble bu ñorul ak yooyu déedéet ku bëgg nga dolliwaat encore poivre noir ak yooyu euh, man nii laa koy def donc damay daal di nettoyer ñu bàyyi leen ngeen déglu tuuti rek si xasida yi incha allah bu ko defee ñu nettoyer daal di ñëwaat mun a yeggale encore parce que fi ma nekk nii affaire yi wër nañ ma ba xaw ma sax lu may def <laughs> 14 to introduce rules. أولياء waaye takk boobu mu takk boo demee ca voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw euh, daal di ñëw def gis nga suñu euh, ceeñees yi bismillah donc euh, bu kii bi bu affaire yi tàngee rek da ngay xaw a wàññi tuuti parce que bëgguñu diw bi tàng bu dul lool leneen li dina ñor day ñoree ci biti te du ñoree si biir donc man damay njëkkanteeg moom def ko ba mu fees bu ko defee loolu dina ma dimbali wàññi tàngaay bi voilà voilà moom doo ko laal bu bu kiyee rek euh, bu paree rek da ngay gis moom mooy yëkkateeku ci kaw ci boppam boo koy laal di ko tas gis nga nii rek te beneen astuce bi nga xam ni tamit am na ki nga xam ni buggul saaf même même chose farine bi niñ ko defaree nii pat bi mun nga ko jël nga dugal ko si fuur bi tamit du si wàññi dara dara dara dafay génn nice man man xam ngeen boobu moo may dàqal man personnellement voilà gis nga dama ko dindi si gaz bi parce que dafa xawoon tàng loolu sax moo tax léegi boo ko duyee ba mu fees nag gis nga nu muy gonfalelee boppam moom mooy wàccee température bi léegi nag nga bàyyi bu tëmbee ci kaw nag après ñu commencé ko tourner daal xaaral ah, raxas sama gants yi voilà gis nga comme tëmb na damay toog du ma ko du ma ko yàkkamti du ma def dara ni ngay xamee ni beñe bi par exemple ñor na si biir mooy normalement soo ko yëkkatee xam nga su ñorul si biir soo ko yëkkatee benn beñe dafay am da ngay am tendance que ni impression que ni dafa diis torop donc loolu moo lay wan ni si biir ñorul des na comme par exemple bi ma yëkkati noonu dafa des euh, donc mais bu fekkee ni ñor na si biir soo ko yëkkatee day mel ni like comme éponge nga téye dafay oyof oyof oyof loolu benn ci astuce yi la pour ak beñe bu mu munti doon bu ko defee nga mun a xam ni lii dese naa ñor gis nga boo koy teel a tourner nii dina la dimbali aussi côté bi yëpp yëpp dooreendoo en même temps quoi léegi nag soo buggee wàccee température bi lii ngay def donc mi ngi noonu ñu koy bàyyi muy def ay affaire am foofu ndànk-ndànk ñu continuer euh, suñu assemblée ak bagage yooyu noonu donc pour tufe bi xaaral ma ñëw parce que boobu ba léegi waxaguma <laughs> waxaguma si tufe bi moom ku nekk yow yaay xool rek naka ngay defaree sa tufe donc man li ma def dama defar rek tufe bu simple laa def muy lan dama jël euh, pomme de terre ma daal koy tey saafu ma ko sa dem ko tëmbal ba pare après def ko si fuur bi fuur bi moo ma saafal pomme de terre bi donc loolu laa def ma daal di rosi ndawal li aussi donc bi ma ko rosi tuuti diw laa si def daal di koy xaw a dooreel tuuti noonu rek léegi nag daal di si def ndox bu baree baree baree bari bari parce que dama bëggoon <laughs> ndox bi ndawal di ñor ba nga xam ne day daal di mel ni luy amul mel ni gis nga voilà gis nga dama ko laal rek mu topp ma donc nii loolu laa bëggoon nga xam ne day nooy nepp nga xam ne du sonal kenn ku amul bëñ yu dëgër sax mun nga ko lekk donc ma def noonu ba mu leer ma ne ndawal li nooy na ma daal di dagg sama soble def si def si tuuti moutarde daal di def sama ay épices ay ak yu demee ni ki noonu donc bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk ba nga xam ne léegi ma yàq ma jëlaat pomme de terre bi dugalaat ko si biir donc loolu moo nekk man sama nu ma defaree touffé bii ku nekk xoolal rek yow noo sentiree defar sa touffé rek noonu loolu ngay def donc mu ngi nii ñu daal di koy teg nii dama ko tàngal nii donc daal di ñëw parce que ginaar gi fële pare na ngeen gis ni yàq moo ci des ah Colin Wade mu ngi laajte tey jii kii bi plat bi lan la tey moom fusion la ñuy def donc fan yi si fusion la ñu nekk dañu nekk di def ay plat euh, éthiopien boo xam ne defaroon naa ko fi ak dibi ginaar ak aussi vermicelle boo xam ne dañ ko defee ak euh, euh, comment dirais-je lii. Euh, kiiwu wu chinois bi vermicelle bu chinois bi moom laa jël ma def ko léegi li ma li tax ma def euh, recette bii nii c'est pour nga xamante ni dina mun a dimbali ñi nga xam ni dañu bëgg a togg pour seen togg de la semaine mooy yi ma daan def noonu mille prep semaine bi lii nii boo si jël def ko benn benn benn mun nga ko def mu nekk si semaine bi li nga xam ni loolu nga togg donc da nga koy def benn benn après nag daal di koy boole ak sa dessert donc ngeen nga gis ma def tufe fële Euh, loolu mu nekk benn plat donc pour l'instant am nañ fi trois plats yoo xam ni euh, bokkuñu euh, kii bi dibi bi bu la neexee nga boole ko ak vermicelle bi wala nga jël jën si boppam nga saaf ko wala nga lakk ko boole ko ak vermicelle bi defal sa benn salaat bu ndaw noonu teg ko déjà mu nekk loolu moo neex ci vermicelle bi lu nekk lay àndal quoi moom gis ngeen beñe yi ni mu commencé def nii nu mu commencé fuur junki nii voilà ñun loolu lañ buggoon nga xam ne day jóg si kaw nii macha allah macha allah instant bi da ngay xool boo ko laalee mu ngi mel ni comme si affaire yaa ngi mel ni éponge si biir laa lay wax nii <laughs> wala ko ñu ngi mel ni éponge si biir voilà donc mag commencé xaaral. gis ngeen dibi bi pare na damay xaw a dooreel yii nii rekk le temps ñuy yàkk mu ñëw voilà léegi nag xaaral ma jël samay plat ñëw teg oh, baaxul kay mooy ñi ci biti weddee maanaam ki ki naan dugg si leen ci salle bi doon ko ne wax ji xumu na moo tax ne ki naan bu leen dugg fii jërte ñëw da fexe ba ki ki leen dugg nga ne leen déedéet ba leen ne dugg mooy ñi xas yéen sëñ bi leen oya sëñ bi oya ku dul sëñ bi dund kuris ya am ko daam indi sali bi da abati dëkk ah voilà gis ngeen commencé naa assemblée lii laa leen di wax ni moo nekk moo remplacé pain bi nga xamante ni moom mooy njara bread mooy pain wu éthiopien yi donc bii moo ko remplacé tey voilà muy tortilla yi ku nekk rek bi nga am donc man bi ma am nii dafa amaale jalapeño moom moo tax mu mel nii donc mu ngi nii damay jël nii rek comme ça duma yàq lu bari voilà donc daal di jël lii ñeb ñebal ko nii ci digg bi voilà donc teg ko nii ma daldi jël sama tufe bi def ci digg subhanallah xaara am na kii bu bari def ci digg bi donc jël ñamu tuubaa bi def ci digg bi nii macha defar suñu tufe bu bien eh. ku nekk rek yow yaa xool naka nga ko bëgg a rangele mais dañuy indi ñun fleeru plat éthiopien e bi nii ñoom ni ñuy tegee voilà léegi nag ñu daal di jëli ji xaaral dibi bi moom na macha allah oy xaaral ma xool sama beñey heureusement ma ko heureusement li moo tax wàññi gaz bi baax <laughs> ko deful woon tey jii caaf dina xëpp voilà fàttali leen ma de donc ñu daldi ñëw bismillah donc day nekk loo xam ni comme liñ naan rekk tànn sa a neex yow bu dee dibir moo la neex nga def ko bu dee par exemple ki nga xam ne bëggul lekk euh, viande rouge dafa bëgg a lekk ginaar mi ngi noonu xayrun yow daal yow xale yi di wax yaay bañ <laughs> gis voilà donc li ngeen gis fii su la neexoon par exemple tey jii mun nga jël sa kii bi man après dinaa ko def plus tard pour sama kër si kanam tuuti quoi mais mun nga jël sa euh, kii cabbage nga sote ko rapidement moom mooy euh, kii nan la tuddati loolu. chou chou voilà chou pommé nga jël ko sauté ko comme ni ñu defoon noonu bi yoon doo si boole ay kii yu exotique yi da ngay jël chou bi daal di koy sauté rek bu ko defee nga xamante ni euh, day nekk si el bi mais ñun tey dañu jël euh, kii bi salade bi pour indi rek juste flairu dibeeg bagage yooyu xaar leen ma teggili tege ko ni ana kii bi sax pomme de terre bi voilà léegi ñu jël pomme de terre bi daal di koy tege ni verdad. Voilà. tegee ko ci wetu dibi bi nii ndànk gis nga daal di teg nii rek donc mu jox la impression wu euh, carotte boobu ñu boole woon ak kii bi su bi mu ngi nii ñun defuñu loolu mais dañ ko def beneen façon rek def ko donc taajee ko comme ñun bu ñuy taaj Sénégal rek ñu ñuy def voilà mi ngi noonu xaaral man dafa mel ni amoon naa fi mayonnaise de en ah, faatu desaroon naa fi mayonnaise bu defaroon un naa ko ci sàndi voilà ñu daal di débarrasser nii après ñëw tek te xam nga nag duñ ne nag plat éthiopien ba mu jeex mélange te duñ si boole ñaar yi nga xam ni ñoom la moom la ñu bëgg mu nekk liñ naan kafe ñun nag tey jii suñu suñu kii liñ koy defee ni ñuy changé yëf yi mooy dañuy daal di defar euh, suñu beñe bala ngeen gis na le ak kafe Touba moom la ñuy jël daal di ñëw teg ko nag bu ko defee loolu mooy nekk dessert bi incha allah ku nekk rek <laughs> di nga si xaj laa la wax ñëppay kontaan incha allah. Hmm? yarhamkallah you can take the plate. Huh? nee tu manges tout ah macha allah loolu nag lañ bëgg ma ne ko loolu nag la ñu bëgg fi mu nekk nii donc yow daal da ngay jël rek boo toggee ba pare da ngay def sa astuce bu ndaw a ndaw a ndaw muy lan <laughs> jëlal wàññi ba pare avant ngay def leneen donc mu ngi ne ñun ñu ngi teg fële suñu café Touba. léegi nag dafa am benn su fekkee gars yi mën nañ ko jël nii tuuti rek incha allah ngeen xam ni ñun niñ nar a taajee affaire yi donc ñoom éthiopiens yi soo demee seen kër yi par exemple ñoom suñ lay tegal kafe dañuy teg cuuraay ne le muy muy def ay affaire am man instant bi defuma cuuraay <laughs> yoruma këriñ bi nga xam ne moom laay defee cuuraay quoi cuuraay bi may def moom ci kaw gaz bi lay nekk donc léegi damay jël ay herbe ak ay herbe ak yooyu teg ko nii ngeen gis ko donc fi mu nekk nii naanaa ngeen gis ma sot ma def noonu maa ngi jël tuuti basilic même boo amee bu wow tamit ça fera donc dama koy tas nii rek mais gis nga ñoom suñ lay tegal fii seen tee bi ah spectacle la laa lay wax nii yow doo bëgg affaire yi jeex parce que dañ koy def noo xamante ni parce que sa kanam la ñuy saafee kii bi kafe euh, bi si boppam comme ñun ni ñuy saafee kafe Touba ñoom noonu lañ koy saafee si sa kanam def affaire yëpp fi nga toog noonu mais c'est extraordinaire laa lay wax nii donc man maa ngi nii dama jël basilik donc daal di jël sage aussi aussi teg ni am naanaa ku nekk rek li nga am man moom laay jël nii bu ko defee mu jox ma benn aroma bu graaw a graaw a graaw gis nga ma am romarin aussi su la neexee mun nga ko bañ a dagg sax comme ni may ñëw def nii jël affaire yi teg ko nii gis nga parce que déjà yi nii yëpp dafay neex léegi nga jël say kaas teg noonu léegi lii lu muy def mooy parce que yow sooy xelli yëf yi ama tàngaay bi day nekk ci kaw kaas ci kaas bi day day répercuté wu ci suuf nii bu ko defee yow tàngaay boobu moom mooy génnee aroma bi nag affaire yi di xeeñ neex laa lay wax di gun guni fu nekk laa lay wax nii <laughs> mais macha allah ñoom daal mi ngi noonu rek ma ne ko mi ngi noonu rek léegi nag ma daal di dem jëli ji sama. dafa mel ni kafe Touba bi pareegul mais anyway ma nettoyé tuuti comme ça vous aurez une idée daal nu muy deme et tout ça moom voilà tuuti rekk bu góor ok man maa war a ji yeneen yi bàyyi ma tegee ko nii gis ngeen astuce bi damay jël par exemple man voilà gis ngeen astuce bi damay jël comme li ma leen di wax rek booy defar ay affaire comme ngay teg supposons tey mu nekkoon buffet nga bëgg a teg ay euh, plat yu bari yoo xamante ni euh, supposons amoo foo ko teg yow mais da ngay jouer parce que si buffet da ngay jouer si affaire auteur yi léegi man dama dem jël benn bool nii xàmmee ngeen ko dama si laay def ay yu kenn xamul dama jël nii rek moom laa jël dëpp ko bu la neexee nga dëppi ko daal di teg nii gis nga ma amaat beneen auteur donc yow noonu ngay jouer si say affaire daal sooy teg ay lekk ak yu mel ni ki noonu nga bëgg lépp yenn yi bañ a flat daal maanaam bu am ñam daal noonu laa ko mën a waxee nga xam ne du am ñam yow yaay joué ci auteur yi loo am récipient boo am rek mu am ay affaire rek yow jël ko nga daal di koy teg donc suñu café Touba bi mi ngi nii pare na donc damay daal di ñëw jël tuuti si herbe nii donc daal di jël yow nga xel yi nu mu la neexee dama leen di kii nii rek daal di def mu am fuural ak affaire yooyu noonu bismillah gis nga soo defee nii tàngaay bi nag moo koy def man xam naa ni sama café bi foor na dinaa si dolliwaat liquide donc gis nga boo paree nii xaaral ma defee ko nii nga daal di def mais sëñ bi nee na café bi dafa war a am fuural man après su ma paree laa koy def fuural ak ak affaire yooyu noonu <laughs> mais instant bi dama leen di wan rek donc mu ngi nii léegi fi mu ne daal dafa mel ni pare nañu pare nañu pare nañu. <laughs> voilà ma sànni am fi tuuti vert tuuti lu vert voilà There you voilà gis ngeen euh, xool ngeen fii <laughs> fii laa def sama cuuraay bi comme gars yi dañ doon yéexantu ma def ko ci gaz bi ñëw teg ko nii donc man foofu laay taalee cuuraay boîte de conserve kese lay doon bu ma ko dajjee après daal di dama koy changer par exemple bii nii ma subhanallah màgget na mais juste pour wan leen quoi dangay def nii cuur ana mu sax ban mooy wax cuuraay bi si biir et eh, waay voilà cuuraay ngay def si biir moo xam lu la neex nga def ko teg ko si gaz bi mu defal la yow li nga bëgg yépp noonu daal donc mi ngi noonu damay daal di jël nii rek teg nii su ma paree daal di ñëw donc émission bi daal tey jii moom ñu ngi koy jox rek képp ki nga xam ne yow yaay safoo chez Bilo di leen wax nii bu leen fàtte di abonné mais aussi bu leen fàtte di partager vidéo yi parce que noon ngeen ñu mun a jàppale yéen tamit donc de leen ko partager bu baax a baax a baax di uh, uh, abonné tamit di commenter tamit ak like bi like bi like bi like bi boobu moom dañ koy soxla lu bari lu ci waay like du doy <laughs> donc mi ngi noonu di leen wax ni j'espère que di ngeen ko essayer te même bu fekkee ni defeewu leen ko nii aussi mais lii mu nekkal leen benn recette boo xamante ni par exemple tey jii moom am ngeen seen recette semaine bi nii dessert baa ngi ne la ngeen gis affaire u uh, thé yooyu kii bi kafe bi donc ku nekk rek yow yaay xool café booy naan ci neex même astuce bi mun nga ko appliquer ci lépp lépp lépp donc mu ngi noonu di remercier tey jii ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci cabine technique bi mu nekk euh, sama borom kër sëñ Madiama ak soxna Fatou tey ñoom ñoo fi nekkoon kër gi daa xaw a tey maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen remercier yéen tamit ngeen ñi nga xamante ni yéenay neexal sama dimanche yi loolu di ma gunge le temps di leen wax passer une excellente euh, semaine euh, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tamit ngeen ñaanal ñu di leen wax euh, vraiment merci di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette euh, fusion di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah je vous adore